nga jàppee politique démb ak politique tey. politique démb ak politique tey yemul ndax politique démb dañoo yaru woon booba daanaki gone du politique mag yi kesey politique. léegi nag gone gone yi xamul dara ñooy politique gone yu réew ñooy politique léegi xamuñu tous parce que nit loo dof dof dof dof xam ki lay teral xam ki yor sawar war waaye nag dof buy dox di saagaate wuutul sëriñ. wuutul beneen kilifa ndax ko koo gis rek def ko loolu du politique. bon politique gu démb ak politique gu tey ni ma ko jàppee moom c'est diamétralement opposé démb ak tey parce que actuellement politique bi bi ñuy dund Sénégal salté na trop salté na trop vraiment vraiment parce que dama xam ni man ay ay opposants nga xamante ni à chaque fois à chaque fois boo leen déggee rek ci coow wala ci fi na nga leen dégg non non non loolu man d'accord ma si li ma bëggoon mooy comme ñoom ñëpp dañuy wut. ku si nekk rek nga def li nga xam ne moom nga war ak ku nekk nga aw fa nga aw ba mën a convaincre ñi nga mën a convaincre bu ñu seen kàddu. donc am na in très grande différence li tax bu njëkk ba ñun ñu nekkoon nañu opposition pendant des années et des années mais li wér te wóor mooy ñun xamuñu woon lii jàmm ak salaam loolu mooy politique joxe ay argument valable bañ a sos bañ a désinformer nit ñi waxtu yàlla tax donc loolu moo lay doon may donc fii ndam. may la fole donc ndam. non politique bu njëkk ak politique bu tey seen différence bëriwut li fi amoon ba tey moo fi nekkaat rek waaw dañoo am tuuti wuute rek tuuti wuute bi mooy li xew léegi ñaar moo ko waral ñaari cause moo ko waral léegi ndaw ñi dañoo yeewu danoo xam danoo yeewu danoo xam te doonuñ ay dof daal xam nañ léegi li gaa yi war a tëral ak li ñu war a def ak lépp moo tax duñ leen ci bàyyi ba ca des mooy politique politique politique politique léegi bi ak politique bu njëkk bi c'est la même chose quoi ku masaana toog da ngay jéem a jaay doole sa moroom loolu moom yàgg na fi mais léegi nag dafa changé léegi ni mu changé mooy bu njëkk da nga daan jaay doole sa moroom kenn du nga mais léegi loolu amatul boo xoolee taw di Diouf jamono bi ñuy jàpp Abdoulaye Wade di ko tëjëkkat yooyu boobu noonu par exemple ndaw ñi meluñu woon nii wala boog amuñu woon mentalité bi mais léegi nag moom loolu amatul waaw. ñii ne nañ Sonko dañ koy jaay doole ah! est-ce que la la tax ñu di ko jaay doole sakkuwu ko moom ci boppam bu jaaroon fi mu war a jaar kenn du ko jaay doole mais nag boo fekkee kilifa di ko sekketal kilifa bi daa baax sax waaye bu bu meloon ni moom nii Sonko leneen la ñuy wax ci moom yàlla xam na ko. jaay doole man de je pense pas xam nga bu fekkee ne donc da nga am donc un problème privé nga bëgg ko plus ou moins donc politiser loolu moo indi coow li citoyen la am na donc un privé boo xam ne donc une personne privée bu ko porter plainte na dem wuy ji mais boo waree donc donc dem ci justice nee ko donc léegi nag ñun ñëpp nañu dem ci kii boobu loolu dong amatement boobu rassemblement boobu jaru ko yow demal tontu boo amee donc ay preuve joxe buñ la laajee nga wax loolu donc moo gën. mais bien sûr jaay doole la jaay doole la moom vraiment ndax Sénégal moom. tey bu fekkoon lépp dañ ko teg ci yoon rek kenn ku nekk mën nga dem wuy ji yoon ndax yoon moom ñëpp la fi nekkal nga dem wuy yoon ci nim ci nim yellee te xaddu damm mais bu fekkee ne nag par exemple loolu amul ah dañuy sonn rek. li nga xam jaay ñu ko doole mooy loo gis Sénégal dafa am yoon Sonko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko convoqué bu ñu ko convoqué na dem wuyu ji comme ay moromam citoyen la comme yeneen nit ñi mais y a pas bu ñu ko woowee comme Sénégal mel ni événement dafa xew. foo dem embouteillage am fa coow am fa nangam sangam loolu moom c'est anormal dafa war def buñ ko convoqué tee mu dem moom dong bañ a ma saam bañ a ànd ma dem dem wuyu ji su waxee lu dugal boppam mu xam ne dugal na boppam su waxee lu génne boppam mu xam ne génne boppam mu jeex. mais loolu loolu rafetul politique démb ñun ñii dañ doon def donc ay conférence di jaar ci réew mi département par département di joxe donc suñu argument man loolu laa xam ci politique mais politique sos. politique donc di wax loo xam ne amul di ji nit ñi loo xam ne defuñu ko loolu vraiment donc doomu aadama ak doomu aadama jullit ak moroom ma sax loolu da ci rafetul. noo jàngatee situation politique bi bi moom ni ma ko jàngatee mooy ni ko ni ko sénégalais yëpp jàngatee rek mooy que ni Sénégal moom mu ngi nii rek kumba am ndey kumba amul ndey rek ndax politique bi moom fi mu toll nii jaxasoo na jaxasoo boo xamante ne bii dañuy wax rek ñi ci kaw bu ñu yërëmul ñi ci suuf. ah mais ñi ci suuf dañuy sonn rek loolu rek moo indi politique bu ñaaw bi Sénégal. situation moom c'est catastrophique c'est catastrophique dafa ñaaw ci Sénégal sax vraiment lii du image Sénégal dafa ñaaw ci Sénégal lu nekk ngi ko gis dégg te aussi booy xool tamit jeunesse yi danoo mel ñoom tamit danoo xaw a benn côté dañ ci xaw a danoo xaw a ci benn côté parce que koo ci gis wala koo ci dégg rek li muy wax mooy lan Sonko jëral nañ suñu bakkan Sonko jëral nañ suñu bakkan te alors ku am bëgg jaam ak salaam ñu woote ko jaam ak salaam ku ne naxante ba bëgg mais manière bi nga xam ñu ngi koy mën a di ko bëgg a defee moom non non loolu loolu cëram loolu cëram vraiment. mais lu mën a xew daal ba mën a xew mooy lim moom Sénégal moom fi mu toll nii moom dafa am jaay doole moom jaay doole bi dafay bëri. tey boo doon tàggatoo tey looy wax looy digle li nga xam ne mooy waa dëkk li may digal waa dëkk bi nañu roy lu baax di jéem lu baax ndax lu baax moo am mujj moo ñuy noppal tey moo ñuy noppal ëllëg nañ jéem lu rafet ku ko mën ku ko mënul. loo yor denc ko wasalaam